how you be, you have to praise the mighty. I praise Him. To the Almighty God the great. Praise Him. He's the only one we praise. Praise To the Almighty God the great. No matter who you be, you have to praise the mighty. Yeah. Almighty, Almighty. must burn all wicked men one all day. Wicked man go burn so fire must burn all wicked men one day. asalaamaaleykum Gambia namoon nañ leen lool si seen dial GRTS tey dial GRTS mu ne naka dañoo defar ba mu baax comme ni ko système maam de waxee mhm. Ibo asalaamaaleykum. waaleykum salaam déwénal ah. suma déwénal anam suma saliboo. non isi naa ko tamit la yéen ci biir tey. waaw ah, moo koy ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ah, ñaanal jàmm dellu si waat suñu beneen programme request show bi comme ni ñu ko baaxee defee rek dimanche bu nekk. té nak ah, gis ngeen ko té mo xama fa la joggé xawma ndax. té ah, yaay hmm? Fall la. yaay Fall. Hmm? yaay Fall. yo yaangi fan yaay ngi ko fan. waaw ma ngi joggé ka naka MC MCJS. ah ok ya di kontaan ci ñom bu baaxa baaxa ba di kontaan tamit ci suñu gess yu baax yi ñu am tey. ci si studio bi di kontaan ci ñom bu bari bari té nak problème bi hmm ki ma solal. Hmm? ah mam nissan mune naka dam Diop. Banjo. nissan so ku dem marché Banjo nga lay té dam Diop rek mo ma solo li mune té yaay Fall. rek la wara a nekk nga man rasta la di bëgg ci moom bu baax a baax a baax di bëgg tamit si artiste yi fi nekk Ramatulaay di kontaan si seen teewaay ak ñeneen ak ñeneen. di bëgg ci ñoom bu baax a baax a baax. foog naa dañoo daw dem def nële. Mhm. def vidéo. waaw ñëwaat. Mhm. rek gars yi. ñu boole duñu def dara ñoo dem ak suñu nekk si break bi rek suñu dellu see rek ñu continuer. kooku ku nekkoon Dia. mu ne mhm. naka Ivo. mu ne Taling Taling ah. waaw bi dafa over rafet. yaa di kontaan si moom bu baax a baax a baax di kontaan tamit si uh, Omar Ndiaye Magic Production di bëgg ci moom bu baax a baax a baax uh, vidéo bi na. torop concept bi. parfait i papa waaye si biir programme bi rek Ramatoulaye uh, ñu ngi am suñ gëstu yu bari fii. waaw te si ma sax dañu am ah ay burikat yëpp fi lañu am because kenn mu fa léegi dañ ko génne léegi léegi ah, moom ñu fi am ay toogakat ñu fi mhm. am ay wóorkat ñu fi mhm. am ay xalamkat ñu fi mhm. am ay guitaarkat ñu fi am pôle boo xam ne fàttiga leket day wax ni ba pare ñu am borom bokku bi tamit si biir programme ci kanam tuuti rek lula la wax ni di bëgg ci mom bu baax a baax baax la wax ni Women Magazine mhm. ah, idol Family ñom ñep hmm wa fu nekk ni dañoo dem ak surprise bi mhm. nga mhm. xamna ni ñuy sétan fu nekk ni c'est ram gi tanga wa fu na ñu nekk studio fi seen yaram mo gëna tanga so we just put a round of applause for MJ and Jembaye Mm-hmm. waaw uh, yow. waaw yow jéeg moom may ah? naa la Ivo. waaw yow demal na le ah ah, ah. dégguloo ah madame. nagam. maa ngi fay naa la dama bëgg nga laaka Paul ndax nit ñi xam ne yow Paul waaw mu ne comme like loolu moo sant jaar moo yóbbuwaale soo man sax suma yaay sax moo jaarale ma de eh, moo tax ku nekk rek pël la ma def foog waaye pël la waaw moom mm-hmm. pël la ma bëgg a def ok soo ma si mm-hmm. eh, <laughs> ah, na naka salibo bi woon na rek <laughs> ah. Um, waaye balaa maa def. Mm-hmm. maa ngi gërëm Gambie yëpp. di leen di nuyu suma fans yëpp waaye mu di toll rek maa ngi laa nuyu lu bare bare bare mm-hmm. di wax ne I love you mm-hmm. am géej a gisee am na ah, moo tax nag tey ñu ñëw fi nar a jàkkaarloo yéen mm-hmm. def dem